dañuy ñëw rek ci li nga xamante ni personnes handicapées yi dañ koy dund ci wàllum élection donc bi ci njëkk dafa nekk problème boo xamante ni problème physique la maanaam ci seen jëmm la am ci beneen boo xamante ni jafe xibaar la wàllum information am ci beneen boo xamante ni problème la bu euh, xamante ni ci ci lieu de bi nga xamante ni fa la ñu war a voté wala centre bi foofu lay nekk maanaam bu dee ci wàllum physique li ñu ci bëgg a wax mooy personne handicapée bi nga xam ne dafa dëkk fu sori wara a déplacé wu dem voté ji surtout ñu dëkk ci village ak yooyu nga dañuy dox ay kilomètres soog a dem donc kooku day am ay jafe-jafe pour euh, parcourir distance boobu noonu dox ko jóge dëkk ak dëkk dem euh, voté ji donc euh, parfois bu fekkee handicap visuel la encore faaw mu am koo xam ne moo koy accompagner mu mën a dox ay kilomètres pour mën a dem ci lieu de vote bi beneen jafe-jafe bi tamit mooy wàllum xibaar da cee am ci handicapé yi ñoo xamante ni dañuy am jafe-jafe pour am xibaar mooy ñi nga xamante ni dañu am problème mu dégg-dégg ak ñi xam ne dañoo am problème mu gis-gis koo xam ne dafa am problème mu dégg-dégg boo toogee ci télé bi di wax wala nga nekk ci rajo bi di wax moom du ko mën a comprendre parce que du dégg donc loolu day jar ñu am ñi nga xamante ni ñoom la ñuy tudde ay interprète ñi nga xam ne ñoo leen di euh, euh, traduiral ñoo leen di leeral xibaar yooyu ci wàllum signe ak ay ay ay geste ak ñoom seen loolu problème euh, problème la boo xamante ni ñi am handicapé yi am problème bu dégg-dégg dañ koy jànkonteel ci élection yi donc duñu xam programme bi duñu xam xam code bi duñu xam révision yi duñu xam retrait carte électeur yi duñu xam duñu ci xam lu bëree bëri ba duñu ci xam beneen bi mooy ñi nga xam dañu am problème bu gis-gis ñoom aussi donc war nañ leen a jàppale ci li nga xamante ni moom la ñuy wax méthode en braille donc document en braille parce que dañuy gis ne code électoral bi nga xam ne mooy wax ci lépp lu jëm ci élection ak bulletin yeeg xeet yooyu noonu duñ ci am ay exemple yoo xamante ni ay spécimen yoo xamante ni en braille lañ koy liggéeyee te ñoom bu ñu amul lu ñu xamante ni en braille lañ koy liggéeye du ñu mën a gis kon donc du ñu mën a comprendre braille bi lañ mën a am di ci teg seen loxo di comprendre lii lan la fan la toll et cetera donc euh, beneen bi mooy lieu de vote yi ak centre de vote day am centre de vote yoo xam ne boo ci duggee maanaam nañ ko tabaxee méngoowut ak doxalinu waylaago donc waylaago bu ñëw day am problème pour yéeg wala mu am problème pour wàcc donc loolu lépp nag bi ñu ko càmbaree dañu ne ñun faaw ñu am ay proposition ay recommandation yoo xamante ni danañ ko def bi ci njëkk mooy gouvernement bi fexe ba dans les zones reculées mu mettre à la disposition des personnes handicapées ay moyens yoo xamante ni mooy mën a seen déplacement di leen jëli di leen indi mais également di leen yóbbuwaat Euh, beneen bi mooy ci wàllum information ñu ngi sàkku di proposer gouvernement bi na recruter ay interprètes yu doy tasaare leen ci réew mi yëpp ngir ñu man di jàllale xibaar bi ci ñi nga xamante ni ñooy waylaago yi comme ni nga xam ne noonu la ko euh, préfet yi ak sous préfet yi di defee ak plénipotentiaire ak mandataire <coughs> nga xamante ni interprètes yooyu dañuy mën a lëkkaloog le préfet donc ak le gouverneur ak autorités yi ñu dajale way laago yi di leen defal tradition di leen wax ñi nga xamante ni noonu la élection bi defee demee ak li ci aju lépp beneen ba mooy it ñi nga xam ne du ñu gis ñoom aussi dañuy am benn jafe-jafe ci wàllu code bi ak ci wàllu fii bulletin ak fiche yi ak yu euh, ak yu mel noonu ndaxte tey euh, ku ci nekk war na mën a fexe ba ñu mettre ko en place moyens yoo xamante ni tey bu demee ba jël carte yi dana xam ne carte bii carte diw la li carte diw la li carte diw lool nag li koy maye mooy ñuy utiliser li ñuy wax méthode Braille méthode Braille mooy méthode bi nga xamante ni moom la silmaxa yi di utiliser pour mën a identifier bulletin bi mais également pour mën a xam li nga xamante ni moo nekk ci code électoral bi beneen bi mooy édifice yi maanaam centre de vote yi ak bureau de vote ak euh, li nga xamante ni moo fay jafe-jafe personne handicapé bi ñëw dañ fay fekk mbooloo kon war nañu mën a fexe teg foofu benn comité d'accueil boo xamante ni bu ñu gisee handicapé di ñëw sil maxa la wala albinos la wala handicap moteur la wala lu mu doon ñu daw jëli ko accompagner ko protéger ko ci mboolo meeg buuxante bi ba du gaañu mais également yóbbu ko ba ci bureau de vote bi mën a woote dara ndax am ñoo xam ne dañuy ñëw mais yenn saa dañuy rang ci bureau de beneen ba mooy day am euh, service yoo xamante ni pardon euh, centre de vote yoo xamante ni tey pour ñu yéeg foofu day metti ndax day am ay genre escalier ay gradin wala ay marge donc personne handicapée bi yor beeke avec un déplacement lourd wala ki toog ci chaise roulante ñoom dañuy am ay jafe-jafe pour yéeg ci eh, xeetu escalier yooyu noonu loolu également ñu ngi ñu trouver ay solution euh, à court terme donc wala ay solution immédiate créer benn rampe bu ñu demee ci euh, artisan yi mën nañ leen a defal de rampes mobiles nga xam ne tey bu ñu ñëwee rampe bi dinañ ko mën a jël teg ko ci marge bi personne handicapée bu ñëwee avec une fauteuil wala avec des béquilles dina mën a yeeg facilement wàccaat sans aucune difficulté loolu bokk na ci quelques jafe-jafe yi nga xamante ni recensé woon nañ ko pour euh, jàllale ko vraiment ci séminaire bi ci formation bi ngir gouvernement bi mën ci jot mën ci jël également ay mesures avant ñuy àgg ci élection yi ñu jëmmal